man damay dégg yenn propos yi wax nii que ñun ñu ngi si jàmm ñu ngi dund xawma lan ka nekkuñ ci benn danger affaire yooyu daal mais dama bëggoon andi ay leeral rek instant bi nii maa ngi dox 18 heures a jot dafa lëndëm nii rek mais gis ngeen mbedd bi amul kenn ku ñeme dox amul kenn ku ñeme dox lii yëpp lu ko waral mooy nit ñëpp dañoo ragal contamination léegi lii nii ku ci nekk. est que nekk nga ci jàmm est que nekk nga ci jàmm loolu laa bëgg ñuy wax ma gis nga kii ni masqué kanamam gi ci kaw ba ci suuf ah gis nga kii ni maske kanamam ci kaw ba ci suuf nit ñi kenn ñemewul dox man instant yi génn bi ma génn nii rek bii bi mooy premier fois may génn depuis trois jours te instant yi ci sama buntu université laa nekk yaa may dégg donc man pour man dañu war a bàyyi yenn propos dalal xel yi ñu nekkee di wax naan ni ñi étudiants yi ñu ngi ci jàmm ak yi demee noonu ñun nekkuñ ci jàmm bu ñu nekkoon ci jàmm dañ koy wax man au début sama papa daf ma laaj ma ne ko jarul ngay am leen looy tiit di ko ragal mais instant yi dama sës wax dëgg fa yàlla parce que mënu ma comprendre lépp gars yi dañ koy jël di ko maslaawee wala di ko xoolee seen intérêt bopp alors que ñun instant bi ravitaillement yi ñuy jënd sax risque la parce que bu ñu demee ci supermarché yi. ñi ngi ñi ngi nekk en contact ak nit ñi te supermarché yi instant yi prix yëpp dañoo grimpé lépp a cher lépp a cher donc ñun kan moo ne ñu ngi ci jàmm kan kan ne ñu ngi ci jàmm nekkuñ ci benn jàmm maa ngi nii di ko wax waaw te dama bëgg nag ñëpp jot si bi man mi nekk ci milieu bi nag man maa leen ko mun a wax xam nga sama yére gi nii fii Wuhan la Wuhan Wuhan laa nekk waaw. dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp te man maa nekk fi nga xam ne fii la virus bi ëppee donc ñi fi nekk naan nit ñi ñaa ngi ci jàmm c'est parce que dañoo nekkul fi affaire bi nekk waaw loolu laa bëggoon nit ñi xam te ñu bàyyi nekk fii naan ay di def ay rumeur yoo xam ne wóoru leen boo leen bëggee lu leen leer rek ngeen laaj ñu koy dundu waaw te essence yi denrée alimentaire yëpp yokku na yëpp yokku na te essence yi supermarché yi seen approvisionnement léegi mu jeex ñun déjà. benn danger rek dafa am mooy que ñi ngi génn di nekk en contact ak nit ñi bu ñu demee supermarché te mënuñoo toog suñu biir kër yi te virus bi mën na la contaminer ci n'importe quelle façon imaginel ñu ko yàlla nit am virus tufli bu tuflee nga dugg ko sa dàll sax nga dugg moom sa biir néeg yaa ngi en danger xam nga donc léegi nan lañ nekkee si jàmm nan kan moo ne ñu ngi si jàmm kan kan ma dégg ñi ñi di wax ay waxu ay renforcement financier ñun soxlawuñu xaalis ñun ku ñu jéem a dimbali ñu génne ñu fii yóbbu ñu xaw moo xam fu mu ñu yóbbu même bu ñuy mettre en quarantaine ñu mettre ñu ko mais nañ ñu génnee yóbbuñ si parti bu safe boo xam ne ñu dinañ mën a nekk ci jàmm waaw loolu laa laa bëggoon mu leer wasalaam.